भोले जल हमारा Eh, salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek di leen ziar di am mbégte ak contentement di ànd ak yéen programme Lutte TV tey nag ñu ngi fii Maaro ak feebar yi xam ngeen ne temps yi moom gars yi dañu ay entraînement collectif yeeg saal yeeg lépp tëj nañ waaye ëbbali tey dañu fekk si ko géej Maaro mu mel ne moom mu ngi si maintien ba léegi duñ def dara rek lu dul nuyu ko dalal ko baay mu nuyu ñu koy seetaan si Lutte TV ma ne ëbbali wala ma ne Ibou Ndiaye Diouf yor waaw boo ci wax rek Boucar waaw ginnaaw bi ñu santee yàlla jóg si yeneen bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di nuyu Sénégal gi yëpp waaw di nga nuyu Bukar waaw di nuyu Lamine maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan réew mi yàlla na fi jàmm am. si barke Serigne Touba. amiin avant ñoo wax si waxu làmb coronavirus dugg si Sénégal mun nañ ne dama activité yëpp muy làmb muy xew sax julli julli jumaa sax dañ ko aaye léegi jamono jii tey ban loo si wax. waaw doy na waar feebar bi moom. dafa nekk suñu borom wàccee si kaw doomu aadama yi rek. Mhm. waaw jaam yi nag dañoo war a tuub ñu ñëpp. Mhm. parce que feebar bi jaaxal na doomu aadama yi. Mhm. mais di ñaan rek suñu boroom xam nga moom mi nga xam te ne moo ko fi wàccee mu saafaraa ko. saafaraa ko doomu aadama yi. parce que ah, doomu aadama yi daal jaaxle nañ tiit nañ di ñaan yàgg mi nga xam te ne mooy maye mooy xañe ku mu teg nattu. su heure bu ko neexee ak nu mu ko neexee mu dindi ko yàgg nañ ko suñu borom teg si barke Serigne Touba. waaw amiin. jamono ji entraînement yi naka la demee mu mel ni ah, en solo ngay entraîné maanaam yow kese naka la demee léegi. waaw entraînement yi su ma xëyee damay ñëw fii fi ngeen ma fekk nii si dini na benn école bu nekk sama koñ. Mhm. fa laay defee physique rek. waaw mhm. ah, ànd booy joueurs yi. Mhm. bi moom cardio rek laay liggéey quoi ak charge. ak charge waaw parce bi contact bi duñ ko mun di def. parce que dajaloo bi mooy tax quoi. waaw mais ñun moom ñu si entraînement yi. waaw ñu ngi. tërën bu baax teggi suñu waxo si entraînement yi. Mhm. waaw ëppale tey ñi lay dégg tey wala di la gis si bi am dese laa tey boo doon wax sa bopp yow yaay kan. waaw man maa ngi tudd Ibou Ndiaye. Mhm. waaw dëkk Diofior. Mhm. juddoo fii dakaar parcelle. nekk from parcelle. juddoo parcelle yaroo fi. màggee fi. di doomu Diofior di doomu séeréer. waaw. comprendre nga. Mhm. waaw mooy mooy moo moo moo tax. moo tax daal waaw. Mhm. waaw kookoy Ibou Ndiaye. kookoy Ibou Ndiaye Diouf yow. Mhm. simple la ñuy njëkkee. waaw daaw daawaati jéeg ak ren. yaa ngi ci yaa ngi ciy wane sa bopp. Ibou Ndiaye ak lutte simple. waaw waaw Ibou Ndiaye ak simple ne rek xam nga. Boucar comme ñun ay sportif lañ. te dañuy dañoo war à tout moment. di ci nekk. parce que mbër gëj a bëre baaxu si mbër. ñàkk compétition baaxu si mbër mbër bu amuwee compétition rek dese naa doon mbër. gëj a bëre tamit baaxu si mbër. waaw moo tax nag xam nga mënuñu toog il faut ñuy wàcc di compétir di gën a yokk suñu xam-xam parce que man boog sama côté. à ma part personnelle man dama jàpp ne. man mënaguma bëri xaw ma dara. moo tax may nekk si mbapat yi di gën a tarbiw. di gën a góorgóorlu bu baax si làmb ji. waaw waral chaque duñ comme duñ def dara bu ñu entraîné semaine bi hmm. weekend bi dañoo nar toog rek di wax hmm. xam nga te mën nañ dugg suñu yoon nekku hmm. ñu jël suñu saak rek dugg si àgg bi dem foraatu ji ñu am ñëw bokk ak suñuy nit dugg si àll bi ren ñaata final nga waaw ren am na onze final onze final waaw ñaata nga si jël cinq cinq yi nga jël onze man ma tombé yu maanaam nga teg lay ay parce que weer boo xamante ni foo demee ba final rek waaw ñàkk waaw sa sa fan si di la mere lool nag dëgg la naka nga ko daan dundee waaw commencement bi xam nga am na nu ma ko doon dundee lu métti parce que gis nga commencement bi dañoo commencé xam nga dakaar fii Serigne Ndiaye de génnee ma ñaari yoon ay demi-finale xam nga dem si àgg bi comprendre nga grand Mbagnick tamit sama copain xam nga di ko nuyu au passage génnee ma tamit demi-finale ordinateur tamit Fatick demi-finale mu nekk quatre demi-finale gu ne ma koy dégg waaw ko si saison ren bi gars yi dañ ko waaj a gars dañ ko pare gu ne mais Boucar boo xamee gën si yow xam nga ngay daj si entraînement xam gi ngay daj si ay coono xam sa bopp daal maanaam noo du ay waxu nit moo ngay découragé ko parce man gëmoon naa ne yàgg-yàgg dina ñëw commencement bi nag mun na métti nii rek mais wóor na Serigne Touba man gëmoon naa ne day ñëw te gis nga à la fin ni mu demee waaw nga ne day neex nga jóge si demi final yi dem final ñàkk final yu bëri waaw waaw waat si demi final yi mm-hmm. waaw dem lamb ju ma dem finaalu lamb ju ma dem finaalu mm-hmm. ñàkk tamit tegewaatu mot ay 4 final xaw ma 5 di ko ñàkk tamit waaw mais nag xam nga gën jàppaat rek parce que su ma tegg woon sama tànk mun naa xam nga am na mbër yoo xamante ni jugandoo woon nañ waaw saison dafa ubbi si ñoom naqari waaye ñu toog ñu daw ñu daw comprendre nga toog seen ruqu xam nga ñi may wax waaw mais instant bii nii man nag xam nga mënoon naa bokk si si si si si si gaa yooyu mais defuma ko waaw dama dama dama dama dama gën a gëm affaire gën a concentré wu mhm. waaw ba suñu borom nag dem ba teg demi final yeeg final yi ma commencé mhm. xam nga di jóg tout am ñu naan ne ëppale ñu koy daan si biir simple waruñu koy daan seen ni nga ko waxee Serigne Ndiaye daan na la ñaari yoon simple garaa mbañit ñëw daan la ñeneen ak ñeneen nit simple jàpp ne da naagu ñeneen ñi dañuy jàpp ne maanaam da ngay maanaam fecc bi ngay topp ba ëpp moo tax doo concentré si làmb ji looy wax ci loolu waaw Boucar xam nga ñun dañoo nekk ay nit yoo xamante ne nii ay jaam kese lañ mhm. waaw tey gis nga ñun suñu ñu suñu suñu bëre simple bi mhm. mbër yëpp mhm. mënante wuñu ku ne mun ngaa daan sa morom mhm. koo si jàpp ne mënu ngaa daan rek ba si mbëru poussière yow yaa nga gis mbëru poussière di daan poids lourd waaw comprendre nga comme ni ma koy waxee nee naa leen booy booy yi moom daa bëri ay trompeur waaw parce que yow fu ñu demee ba ngay gis mbëru poussière jàpp poids lourd def ko comme xage maanaam tey dafa nekk goo xamante ne nii tey ñun waruñoo mun a waruñoo waruñoo mun a jaaxal kon tey ñun suñu biir mbër bu si taxaw foog ne yaa mun ñëpp yaa ngi nax sa bopp parce que fii ñëpp ñëpp ñëpp ay daanante seen biir mm-hmm. waaw grand bañik ñaata yoon ngaa ko daan mm-hmm. ah mm-hmm. Serigne Ndiaye moomu ñaata yoon ngaa ko daan xam nga euh, Boy Faye ñaata yoon ngaa ko daan comprendre nga ordinateur ñaata yoon ngaa ko daan comprendre ak moom tamit bi ma daan mais affaire yi noonu kese dañuy daanante ñu biir waaw loolu kese mais tamit xam nga naagu bi gars di wax des fois tamit xam nga man benn côté euh, daf may dagg parce que bu ko man su ma jàkkaaroo mbër man man du ma yaakaar ne mun nga maa daan xam nga ko tamit xam nga. Euh, excès de confiance waaw. Mhm. man chaque jour samay samay samay samay samay nijaay samay mbokk googañ may wax man dama jàpp ne ku ma jaakaaroo. Mhm. maa nga mën. Mhm. xam nga fukk xale bi day ñëw. ak gëm sa bopp bi xam nga mooy tax sax des fois nga juum xam nga ba daanu jéego boo xam te ne ñu bëri dañu siy mere xam nga ñun ñu nekk suñu ginnaaw dañoo bëri. waaw euh, animation waaw animation bi nag ak. Euh, yëngal yëngal beeg yooyu tamit xam nga. am na bukar goo xam te ne boo ko génnee mën a ñàkk sax a ñàkk yow xam nga ne yow su ma ñëwoon si ñaari ramb ne tekk mais ni ku feebar du nga saf mm-hmm. su ma jegee ramb ji sax du saf amateur xam nga yow tey ramb ji des fois dañuy ñëw am na ñoom te ne Adrien Senghor il suffit que ñu gis sama oto gaare ma wàcc rek ñu daw dagg billet mm-hmm. parce que xam nañ ne ramb ji day neex. animation day am animation day am ay tëkkonte day am ay kiiwante mais du dara loolu mooy charme lamb sax te loolu mooy tamit charme lamb parce que des fois tamit bukar xam nga nga ñëw si ba jëw ko du saf sax nit yi mhm. mais des fois tamit xam nga da siy bokk te ñun ni ñuy animé noonu ñuy bëree di jëg parce que ñëwuñu di fecc rek di animé dañuy mhm. animé di fecc te mbokk internet yi mhm. xam nga ñu bëri dinañ suivre amateurs yi rek ñooy seetaan 8TV euh, seen bu mag bi xam nga di nga ko dégg si commentaire yi am na animation boo xamante ne nii tey bu ko Ibou Ndiaye génnee woon nga doon dindi suuf bi muy tibb comprendre nga ah keneen ak keneen ñoom grand bañik seen jaayu yeeg seen yëngu yi mais boobu boo ko génnee si làmb lan mooy des day mel ni lambu chinois rek. Mhm. waaw. Mhm. ñu jóge foofu noonu ñëw ci mayante bi. Ibou mhm. Ndiaye day mayanteeg ma Samba day mayanteeg ma Demba day mayanteeg ma Paul. waaw bi bëri bi est-ce que loolu na tamit narul dem ba yàq làmb. waaw man nag yàlla dafa def euh, bukar benn mbër kese laay mayanteel. yaa ngi dégg léegi. léegi nii benn mbër laay mayanteel. muy duudu. waaw te. mënut a ñàkk. Euh, mooy li may wax rek. waaw su ma mais maanaam bu làmb amee moom mu war fa dem sax man damay toog man su waree dem moom mu toog du ñu sax tase si biir géew mm-hmm. gars yi kii xam nga mënuñu parce que mm-hmm. xam nga rek euh, dëkk bi nekk suñu ginnaaw moo tax mm-hmm. waaw mënuñu mayante day am yeneen mënuñu bëri da ngeen bokk lu ngeen mën mu ngi noonu nag xam nga te mun na indi ay affaires yoo xam te ne gars yi seetaan fi amateurs yi fii mënuñu ko comprendre mais ñun ñi nga ne ñooy nekk ak mbokk ñooy xam moo tax menn mbër boobu yeneen mbër yëpp nag am naa ak ñoom jàmm affinité yow yaa ngi gis gis nga ma keroog maa grand bañik bi ñu demee université mm-hmm. xam nga dañuy tooñante gars yi mbagagante booy fay dañuy tase des fois mu romb yor kuuta mm-hmm. waga si dini sax dañuy tase mm-hmm. tooñante mun nañ sa bokk entraînement te bu ngeen dajee bëri te bu ñu dajee làmb xawuma xawuma ko. mais yàqul dara loolu rek parce que des dañuy ne fii di contact. Hmm. di rayante fii di contact mais bu hmm. ñu demee fee woon ñu contact bi dañ ciy am dara ah, mais dañuy dañuy kii rek mais boo bëggee yow. di mayante ñoom. Hmm. mais yow kon doo am dara. parce que kon làmb yëpp di toog bañ a dem bëri ji. dëgg la waaw man nag benn mbër kese laa laa si làmb ji mayante mais ñi des ñëpp damay bëri ak ñoom. waaw. bu ñu jógee foofu noonu am wax ju fi waxoon. ku si mel ni rëg-rëg ñu laajoon ko si yow. waaw mu wax ne wax leen ma mbër. waaw wax jooju bi nga ko dégg lu mu la def. waaw wax jooju noonu xam nga. Euh, nekkoon na wax joo xamante ne ni métti woon na ma trop. Mhm. waaw bëgguma si woon sax di di di di di waxaat. Mhm. parce que jamono jooju noonu daawaati géej dañ ko laajte Ibou Ndiaye. Mhm. waaw dañ ko gaaj mbër yëpp ku si ne muy wax mhm. ñu gaaj ko Ibou Ndiaye mu ne wax leen ma mbër mu ne wax leen ma mbër gudd rëy rek taxut a mhm. doon mbër mu wax wax joo xamante ne nii mais moom sax xam nga des fois mbër da daan nga ne euh, mbër mi ma daan moo ma def mbër mais moom wax jooju noonu mu wax woon dafa mel dafa am nga doon negaw si man mu yee ko comprendre waaw ñu wax googu mu wax googu ma muñ di góorgóorlu xam sam bopp comprendre nga du ma mbër si moom man nag nangu naa ko mbërëm rëg-rëg moom ku ko xam Omar Kane mhm. xam ne champion ga ndaanaan wax mhm. dëgg yàgga mhm. rëg-rëg bu duggee si làmb day neex bu bëree day neex comprendre nga bu moom ku ko daax animé bu animé day neex moo tax moom dafa bokk si si làmb te dama ko nangu champion am parce que champion international la du ma ne national rek moom nag bu ma nanguwut sama champion loolu moom nga concerné te nañ dem ba ci kanam bu kar dinañ xam li ci kanam raw li ci kanam raw gi bët xam nga moom mooy naan jam ñu dem ah mhm. nañ jam ñu dem ñu dem ñu ñëpp ay booy lañ mhm. làmb ji mu ngi suñu kanam mhm. mu mel ni daal depuis nga dégg wax jooju noonu tey maanaam daf la motiver daf la yokk jom mais dafa mel ni taxul nga mere ko lool lool lool non merewu ma ma ko mais am na loo xamante ne nii man xam nga depuis wax jooju noonu mu ko wax ba léegi xam nga moom des fois ndeysaan bu waxee rek da ngay da ngay da ngay découragé si moom waaw moom bu waxee rek da ngay découragé si moom mais nag xam nga champion nga ndaanaan nga mais barki Serigne Touba Mbacke Boucar nañ dem ba ci kanam. wóor na sëriñ Touba Mbacke gis nga. Hmm. nañ dem ba ci kanam bu kanam luy am ci kanam. non am ci kanam nañ dem ba ci kanam rek. Hmm. amateur yi ñu ngi fi yéen a ngi fi. Hmm. nañ ñaan yaaga mooy ñu gudd fan ak wér. gis nga làmb ji. mbaxalu xeer rek njëkk soor sóor taxut a yàq. nañ dem ñu ñëpp suñu biir ñu ñëpp benn génération bi gañ yàgg yàgg yàgg yàgg daal yàgg yàgg bawul dara barki Serigne Touba yàgg yàgg. dinañ dinañ dinañ daje ji si kaw. dañ koy gis des fois yow boo waree bëreek moom mu mel ne des fois da ngay ñëw da mel ni ku ko yàkkamti waaw boo ñëwee selim lay woo nax daan la waaw mu ngi noonu mhm. parce que gis nga wax jooju noonu mu waxoon ne Ibou Ndiaye du mbër mhm. euh, waxu ko. Mhm. maanaam waxu ko ngir. Mhm. Euh, ñàkk nangu sama mbër. Mhm. parce que dafa xam ne man adversaire am la potentiel. léegi genre wax yooyu noonu xam na ne kii mooy ki nga xamante ne nii tey. su continuer woon si simple bi. wallaahi azim parce que man su may bëreeg moom man ba may ba may bëreeg moom. man barki arxuraanu karim wóor na ma ne rëg-rëg moom a man ba may bëreeg moom. mun naa jàpp ne boobu noonu. am na gu bëri gu ma manqué woon Boucar man xamoon naa ko dëgg la dama daan ñëw nii rek mhm. xam nga mhm. indi fugg indi jeunesse indi jom indi jom te fu ma taseeg moom moom duma ko amu damay ñëw bëgg ko fi fekk réegi-réegi saax-saaxe ko mhm. bu ko defee nag moom muy naxante ak man jaay ma xegu mag xam nga fexe ba jàppuma fu baax comprendre nga imposé dëgg la comprendre nga te ñi ko daan man si laa bokk yaa ngi dégg mas nga ko daan waaw ah, tamit amul mbër moo xamante ne mu ngi takk si ngemb mhm. si si ji koo mhm. xamante ne nii xanaa mbëru door yu mag yi de mhm. comme te ne man musuma ko daan mbabat ñaata yoon ngeen bëree ñaar mbabat nañ cinq fois yee mu daan ma deux fois ñaari mu génnee ma par avertissement nga daan ko benn man ma daan ko benn yoon waaw te jamono jooju nag bokkut ak jamono ji tegaat nañ si ñaari at bi may daan def na trois ans waaw ñaari at yoo xamante ni tey liñ ko mën a waxee ëbbali yokku na cere dolli na ñeex waaw yokku cere doogi ñeex mhm. gën a amaat ay entre ay moniteurs yu baax mhm. comprendre nga mhm. gën a tegaat yëpp si si si fuga ak fayda ak jom comprendre nga gën a ak samay mbokk gën a dénkaat sama bopp samay mbokk ñu jógee foofu noonu ñëw ci Yaxya Jóob Yékini waaw mu mel ni kooku noonu tey ëbbale xaw ma lan la ko sexal xaw ma lan la ko defal fu mu toog télé maanaam ak ni fi mbër yi tollee ak ay mbër yoo xamante ne maanaam Yaxya rek lañ bëgg fu ñu toog di ko wax te Yaxya itam fu mu toog maanaam jël bëgg-bëggam jël amuuram wala tey jël confiance am teg ko ci ëbbali est-ce que wax jooju muy wax tout le temps. que ne tey yaa mën a jël relève ci séeréer yi yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi xel. waaw parce que euh, suñu papa Yaxya Joob Yékini mhm. xam nga ne kooku kenn du kenn du kenn du waxati ndaanaa ndaanaanam kooku mhm. maanaam. Mhm. bu bu bu bu bu làmb doon vivre. moom bibliothèque la si. comprendre nga. kooku kenn mënu di doon doon mbër wala di jaay dara. ba mu saf ko. comprendre nga. waaw parce que tey ku mel ne Yaxya Joob Yékini Bukar nañ waxante dëgg te yaa nga tax man de Yékini de. musuñu wax man ak moom sax téléphone. Mhm. Yaxya mhm. musuñu wax man ak moom bi mu lay seedeel loolu quoi. bu may seedeel googu barki Serigne Touba Mbacke musuñu wax téléphone man ak moom xaw ma woon ne sax xam na ma. mais damay góor góoru rek comprendre nga. Mhm. di di di di bëri di wane samay preuve. bi nga déggee loolu lu mu la def. waaw bi ma déggee googu tamit xam nga. Euh, dafa dafa wax ji dafa deegu si waat si si si si si wax ji rëg-rëg waxoon rek xam nga rëg-rëg dafa newoon au bëgg Ibou Ndiaye Diofior dañ ko gaaj deux ans mm-hmm. mu ne Ibou Ndiaye Diofior du mbër nañ ko gaaj mbër gudd rëy mm-hmm. kon ku mel ni Yékini bu ñëwee taxaw ne gis naa mbër weddi woowu ne gis naa mbër mm-hmm. kon moom waxam jooju taxaw kon waxam jooju moo ko ndox bii nii di jaar nii gis ndox bii nii di jaar nii di wàcc si géej gi mook wax jooju noonu moo yem Yékini nag xam nga euh, suñu papa ga suñu nijaay ga Mm-hmm. ñuy roy si moom parce que man ku ma xam-xam ne mm-hmm. ni mooy sama idole mm-hmm. depuis bi may nekk xale ba tey waaw te musuma xam ne sax xam na ma mais may góorgóorlu rek xam nga di def samay performance ba mu gis ne kii kat war na mën a doon champion góorgóorlu woo war na mën a doon champion mais war na mën a doon champion boobu noonu mu wax du question de man maa dàq euh, bëre si làmb ji du man maa dàq euh, euh, maa ëpp mbëri dooge mbër yi ñoo ma dàq bëre fuuf ñoo ma ëpp dooge fuuf comprendre amaana dafa gis si man gu mu gisul si waaw dafa am si man yaakaar rek mhm. waaw loo kese ga te tamit yaakaar boobu noonu mu am si man di ñaan suñu borom mu bañ a tas ba pare nag yaakaar boobu noonu Boucar dafa war a ànd ak jom ak mhm. fulla ak fayda xam nga parce que lu mu laaj am lu mu laaj sacrifice parce que Yékini ku ko xamoon xam ne dafa sacrifier làmbam dafa sacrifier àddunaam ngir làmb mhm. sacrifice boobu nag mu laaj yàlla nañu suñu borom di kàttan ba ñuy am ba ñuy am uh, ngëm kii boobu noonu mën-mën boobu noonu pour sacrifier wu moom coono yim mu daan daj ak sacrifice yi mu def lépp xam nga mm. euh, du question de dafa ne Ibou Ndiaye mun na doon bëri rek mm. ma dem tege samay tànk samay sama kër mm. tëdd naan kon comme Yékini nee na mun naa doon mbër rek kon jeex na déedéet chaque jour entraînement yi tey nga gën a métti concentration bi xam nga ak sérieux bi comprendre nga ak gën a duggaat say mbokk tey nga gën a sérieux quoi waa te xam ne kat ah kon gars yi ñu ngi ñuy bàyyi xel waaw mais léegi est-ce que yaa ngi jokkoo moom ngir lu la mën a jëmale kanam parce que comme ni nga ko waxee tey maanaam référence la ci làmb waaw yaa ngi jokkoo moom ngir li la jëmale référence ga référence ga parce que tey Yékini même bu ma jokkoo ak moom sax moom saa bu defee interview ay conseil am man dama koy déggu mm-hmm. waaw saa bu defee mm-hmm. mm-hmm. waxee te dafa am lu muy def si man même bu ñu jokkoowu sax man ak moom parce que bu ko nag man dama nekk nit koo xamante nii dama xaw a gëm sam bopp waaw man dama gëm sam bopp Boucar mooy yoon waaw mooy yoon man dama gëm sam bopp Boucar mhm. boo xoolee parcelle bi fii ñu nekk nii sax mhm. waaw gis nga ni mu demee mbër yëpp a ngi fi champion yëpp ñu ngi fi mhm. mais man su ma xëyee maa ngi samay entraînement bu gaam bu amee ma dem bëri ji comprendre nga waaw man nag wax dëgg yàlla euh, du ma mbër moo xamante ne nii damay daw gàqu si ginnaaw mbër pour mun a feeñ waaw lépp maa koy yee mais nag xam nga wax jooju noonu muy wax si man xam nga maa ngi koy rafetlu di ko sant di ko gërëm mm. waaw di ko di ko ko di ko gën a ñaan ak yàgg suñu borom wér a cëram yi mm. may ko kàttan xam nga suturaa ko parce que référence si ñun mbër yu ndaw yi mm. xam nga te référence si doomu séeréer bu nekk